asalaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum partout dans le monde di leen bëggee di leen safoo di leen tiitaroo en même temps parce que nit ku la bu la kenn bëggee jar naa daw ba dee di mbéggee fay naan euh, benn nante moom a gënal euh, conteneur ngaaka donc voilà noonu la demee quoi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sama xarit sañ Bass Abdou Khadar di ñaanal euh, borom xaaliman axla sëñ Abdou Karim sama xarit Mbacke Balla Isaac Sadio doomu ndeyam ak baayam surtout maamam yow nee naa la fàllooy sa baay bul na mu dara donc loo ñaan mu am loo wax mu nekk parce que loolu sëñ fàlloo ko waxoon parce que moment bi karaw yi jaxasoo na loo wax loolu la ba Balla sa ñaanal ma rek ñaanal ñu yàlla yërëm ñu te jegal ñu alors di ñaanal euh, sëñ euh, Mbaye Sy Mansour xalifa général de Tidianes di ñaanal ab euh, euh, Ablaye euh, Thiaw Laye Laye Makhtar Laye Alassane Seydina Issa Laye yàlla na sa jàmm yàlla yàgg yàlla na sa yaram wér xam-xam bi gën baawan baawaan parce que am nga njariñ ci ci adduna bi déjà comité murit yi tijaan yi laayeen ñëpp ñu ngi lay ñaanal surtout lébu gi lébu gi ñu ngi lay ñaanal laay maxtaar Ablaye Thiaw laay nga yàgge fi loolu te di ñaanal xalifa Ñaseen cheikh bi Niass Koumba Abdallah ñu ngi lay ñaanal Sokone di ñaanal tamit bu ma ko waxee rek damay tudd sama xarit Baye Diop Baye Diop borom xam-xam bu sell boobu nekk fële ca Paal maa ngi lay bëggee bu baax a baax dinaa ñëwaat nuyuwaat la ak soxna Seck soxna Salimata ak xale yépp maa ngi leen di bëggee di wax ni nag àdduna noonu la na ñu booloo nekk benn na nañu ànd nekk benn ñu bëggante nañu nañu wóolante surtout wóolante bi na ñu wóolante di wax jàmm di wax salaam di dox jàmm di dox salaam wallaahi buñ ko defee mbas mi dinañu abal parce que mbas mi mi ngi lëmbe réew mi fi mu nekk nii nee naa leen euh, couple yi sax euh, dañuy séparé wu mais yal leen yàlla boole ñu bëggante comme ni euh, Papa Thion bëggee jaaga ñu dem xool yi Papa Thion li mu way ci jaaga ak ci ay fu fu tànke yi mu am yu góor yi ko jaaga indil waaw waaw <laughs> let's go Ousmane. Ah. njoko njal ajarama jërëjëfati képp ku bëgg sa soxna noonu nga ko war a def di ko sant di ko ñaanal toujours ak képp ku bëgg sa waajur tamit parce que mbëggeel bokk na ci amour amour euh, fekk si na yaay fekk si na papa euh, bëgg sa yaay bëgg sa papa dafa am njariñ lool lool lool ci doomu aadama bi bëgg encore en plus euh, nit muy sa soxna nga jëlee ko kër indi ko sa kër war ko toppatoo war ko teral war ko tette war ko gérer war ko bëgg aussi jigéen ñi toujours dama leen di conseiller ñaan leen yàlla seen jëkkër bëgg leen mais bu leen ñaan yàlla bëgg seen jëkkër parce que trahison yi ëpp yi am ndaw si moo waral ñu agressif ci amour bi ndaw si day bëgg waa ji te waa ji du ko bëgg alors que waa ji day obligé nekk ci lu ko naax tu vois mais waa ji la bëggee dina la yërëm dina am sa yërmande et que c'est ça euh, l'amour loolu mooy amour bu sincère loolu mooy amour bu bu bu concernant la personne universelle waaye <laughs> universelle go caace très bien di ci bëggee papi le DG de la VIP kët fële comme dab moom ñu ngi nekk Paris di sama xarit di sama jantal booy VIP cinq passages di euh, pro Prondo Paris dixième ñu ngi foofu ñooy dagg coupe yu extraordinaire yi nga xam ne ñoom ñoo koy def di ci nuyu vraiment jaar yi maa ngi koy bëggee di bëggee aji kor ko fàttewu ko Demba Paul ji maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee papi vraiment l' international euh, borom VIP code ñu ngi lay bëggee coiffure des stars muy ngi ci nuyu momo di ci bëggee yaayam bi nga xamante ni mooy xaritam na Nabou Cissé mama may ma soow waay wala meew si sa ngaari njar soow njar meew muy suñu yaay jooju ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram papi mi ngi kontaan ci yaay ji vraiment di nuyu Marlon jantal boy maa ngi lay bëggee bu baax a baax moom mi ngi foofu vraiment ci euh, VIP bi nekk Dakar muy euh, Guest Barber euh, aux Almadies di ci nuyu Aziz le PDG suma jantal brodoman Aziz maa ngi lay nuyu di nuyu Marlon di nuyu Max di nuyu boy yëpp di béggee Vito Badiane Vito Badiane maa ngi lay nuyu chéri Janka Mbaye Vito Vito Badiane l'international boy bu extraordinaire di félicité Diafra Sakho ñi la big up à toi heureux ménage my boy di nuyu vraiment Bakary maa ngi koy nuyee Pape Faye fàttewu ma la fàttewu ma tamit vraiment euh, maire bi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee tamit euh, euh, toute la famille Sakho ñoo ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax alors di wax tamit vraiment Keba a ñu ngi koy jantal boy boy bu adorable vraiment euh, def social bu extraordinaire ci tam xarit bi Keba Kanté le fils de Cheikh Kanté félicitations à toi di nuyu madame Kanté sama chérie ak xale vraiment ma di béggee Adama Kandé de la 2STV moom tamit ñu nuyu ko parce que rafet na Adama ñu lay béggee xëcha félicitations jantal boy 11 13 mi ngi ñu ngi koy big up à toi jantal boy félicitations Modou Mbaye Bantamba fils de Bekay Mbaye félicitations à vous vraiment ak ñi nga xamante ni ñu ngi def euh, ce matin euh, émission yi 2STV yëpp mbayang kër gi ah ñu ngi leen di bëggee di bëggee grand taal ngool ngol félicitations à di wax waa kër gi euh, ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm parce que loolu la ñu mérité di féliciter Abdoul Ndiaye la nouveau directeur tu parce que vraiment topp topp nga sa tànku baay boo toppul woon sa tànku baay confiance bi du am vraiment maire bi ay félicité na la madame Ndiaye euh, te toute ta famille daal ñu ngi lay féliciter di la encourager di wax yéen bi yàlla na oyof ci yow parce que tu mérites tout calme nga jàpp nga sa ñàmbur modeste nga bari woo Twitter man de mu doon doomu Alla Ndiaye nu neex laay doxee <laughs> <laughs> nu ma neex laay waxee <laughs> mais malheureusement du ma doomu Alaaji Ndiaye moo tax may limité samay parole di xam ni may waxee di xam ni may defee di xam ni may gérer alors très bu ñu fa jógee nuyu tamit Ndey euh, Boy Ndey Boy Ndey Boy Thiam GP bu mag boobu nga xam ne mi ngi Italie Ndey Boy Thiam ñu ngi lay big up wax sa liggéey rafet na trop waa Italie yëpp ñu ngi nii ma ñaanan la bëggee la sant la bu mu jógee foofu vraiment di ci bëggee tamit de la part de Pape Ndiaye Thiou sama jantal booy Pape Ndiaye ñu ngi lay bëggee di nuyu vraiment Baye Mamour Laye lay maxtaar laay Alassane yokkal ma volume mu téléphone bi s'il te plaît oui allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw sëñ bi na nga def yee Mère Sagna Yoff ah eh, ma famille adorée papa Mère euh, la famille Ana <laughs> mais où est Diallo maman ana Diallo ak Kempes Kembol. eh mais Saña lañ la wax. a ah, waaw moo tax sa doom yooyu laay tudd sa waa kër te mu ne ma géej nga fi de madame si ñu ngi gisee ah! semaine bële ma naan leen bilaay mère Saña ñu ngi daje woon saan ñu juli fajar bay doxantu mook alaaji paa bi vraiment ma leen di ñaanal vraiment gudd fan maman kontaan naa ci dugub bi. ok merci. di la ñaanal yow sa njaboot dinañu barkeel dinañu réussir. yow it noonu lu ñu am yàlla nañ topp wallaay xiir nga leen ci diine te mooy li may léegi adduna bi moment bi fi ñu toll période bi ku amul diine amoo dara ku say doom amul diine amul dara waa ana Salamo Salamo. yow nag doo nga woon <laughs> wax dëgg yàlla da nga ñëwoon rek def ma yaay macha di bëggee fu ñu toll. da nga mérité yaay sa doom yi bëgg ma vraiment. Eh, euh, nga nga yar say doom waaw teg leen ci yoon bu nga nekk fii ak nga bañ a nekk fa nga leen teg foofu nga leen di fekkaat wallaahi. yàlla na la yàlla teg loxo teg sa njaboot loxo ñu dund ba yóbbu la Makka ku ci nekk nga muur ko mu sëyi ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa ok merci. kontaan naa maman merci beaucoup maman merci merci ndeysaan sama dëkkandoo bu baax la woon fële ca Yoff gis nga lii mooy àdduna mi ngi jël crédit di ma woo maire Sagna di maire bu am diine maire bu brave doomu Thiès la maire bu nangoo liggéey maire bu mën liggéey maire bu xiir ci ay doomam diine ak l'islam ak jàng ak liggéey vraiment merci à toi maman ma ma sama papa bu baax ni ko ñaanal mu demaat makk de woon ngeen ànd bu soobee yàlla te loolu dina am ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que mérité nga ko Mamour Laay Maxtaar Laay Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu Sila vraiment di nuyu tamit euh, Ndey fàttewuma ko di nuyu Maguette Maguette Mbay fàttewuma ko Ana Mbay fàttewuma ko vraiment ki ne Mbay tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Maya Mbay fàttewuñu ko vraiment Lila Lila moom vraiment suñu Lila Njoon Sila ñu ngi lay bëggee ta euh, ta fille chérie xam naa mooy caat bi nag amaamur <laughs> voilà vraiment di ko bëggee bu baax a baax loolu mooy àdduna di wax ni vraiment euh, kontaan naa ci loolu alo bu ñu jógee foofu ñu dem xooli comme euh, ñu ngi ci période màggalu Touba en attendant ma ñëwaat ñu dem xooli vraiment Pape Ndiaye coppet li mu woy ci Serigne saaliw ci euh, Touba ila Touba bi mu woy ko woy bu am taalibe vraiment ma koy may waa Touba yépp di ko may taalibe Touba yépp di ñëw ci Pape Lamine Diop léegi léegi jëwriñu fédération waa allo oui allo ah très bien ok alors ñu dem xooli Pape Ndiaye Coppet ñëwaat Ila Touba. waaw mi ngi noonu vraiment Pape Ndiaye Coppet di Baye Fallou Serigne Touba Baye Fallou Serigne Saliou jamaale li mu ci way ci Serigne Saliou Ila Touba bi am na solo te ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax Pape Ndiaye Thiaw ñu Coppet ñu ngi lay ñaanal une très bonne di nuyu sa soxna su baax soosu Awa Ndiaye vraiment di ko bëggee bu baax a baax di wax tamit euh, vraiment euh, di ñaanal euh, tamit suñu jëwrin boobu jóge fi vraiment di Baye Assane Diop. baay Assane Diop jëwrinu Cheikh Ndigal Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey ci yoon bi dem ci yoon bi ba jeex vraiment ñu ngi koy jaale waa Tëngéej bu ñu fa duggee dañuy xooli la président fédération des Baye Fall muy pap Lamine Diop vraiment jëwrin ñu ngi lay jaale vraiment suñu jëwrin boobu wàcc wàññeeku. ci diine bi wàññeeku ci yoon wi wàññeeku ci tarixa bi euh, Baye Fall bii mu nekk ñu ngi koy ñaanal euh, maam Cheikh Rama Fall Cheikh Ndigal euh, maam Cheikh teeru ko fële ci àjjana yi gën a kawe allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. bi na nga def noo tudd ak fooy wootee. Modou Soare la Modou Soare. Ah, yow da nga may jox sama benn jantal boy l'international Pape Ndiaye Soare. ah. waaw waaw boo santee soirée rek bëgg naa la waay. waaye maa la raw. ndax kooku suma fës la gaynde gi waaw mu ngi ci liggéey bu metti ñaanal ko mu ñëwaat. ah oui oui oui baax na na ñëwaat incha allah. waaye naka mu foo ñuy woowee nii. maa ngi leen di woowee Touba. ak sa Touba Mbacke Touba Fall may sa bigga Kumba kon Pape Ndiaye coppet bi ma teg ilaa Touba bi bu Serigne Saloy bi neex na la. oui mais benn waay laa bëggoon quoi Serigne Fallou bi. sëñ Fallou bi dina ñëw moom lay. dugal troisième quatrième morceau bi moom la incha allah. ok doon. jeex na gu caacee. waxal gu caacee jaaraama jaaraama maam. jaaraama très bien ñu koy may vraiment moom moom nga xam ne mi ngi wootee Touba ñu ngi ñëw léegi ci waali eh, sëñ Fallou bi dinaa ko kale léegi parce que dañuy xooli sama benn boy Modou Ngom alors balaa ñu ñëw foofu euh, fédération vraiment euh, jëwrinu fédération bi Pape euh, Lamine Diop. Euh, ñu mi ngi jaale vraiment euh, Baye Assane Diop moomu Baye Fallou maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Fallou Cheikh Ndigal Fall bi fi wàññeeku ñu koy ñaanal euh, vraiment waa Tëngéej yëpp yëpp ñu ngi koy ñaanal ak waa Touba di ko ñaanal ñëpp di nuyu Pa Usu di jee Usu ñu ngi lay bëggee bu baax a baax vraiment di wax ni yàlla na ko yàlla xare aljana yi gën a kawe liggéeyam yaatu woon na xolam yaatu woon na. vraiment euh, jëwriñu fédération bi Pape Lamine Diop nee na vraiment lépp lu ma ko mën a waxal rek doyul ñu ngi koy ñaanal sëriñ Mame Cheikh Rafal teeru ko kaw Sara Fall fële ca kaw a kaw allo oui salaamaaleykum ah voilà kooku dem na vrai vraiment ñuy nuyu tamit waa groupe solution group solution euh, ñu ngi ci bëggee vraiment Moussa di ci bëggee euh, Otis Royding maa ngi ñaaw di ci bëggee Babacar vraiment suñu xarit boobu nga xam ni euh, ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ci nuyu la président Djibi Ciss waaw président Djibi Ciss moom foog ñu koy nuyu di ko bëggee parce que vraiment mi ngi ci liggéey bu extraordinaire gis nga masque bi ma takkoon ni tey toute la journée moom laa takk. muy Otis au service de social moom ci social lay dox vraiment euh, defar na ci masque yi lu bëri wasaare ko dëkk ba wasaare ko Thiès Mbour Touba Tivaouane euh, ak jas boobu vraiment gars yi di ko rafetlu vraiment euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Otis Redin ñu gën ko xam ci Mouhamadou Meng vraiment alias vraiment Otis ñu ngi lay nuyu di nuyu vraiment tamit famille bi maa ngi ñëw ci soxna si moom it foog ñu bëggee ko parce que soxna si moom vraiment nekk na nit ku baax koo xam ni soxna yi sax laay wax muñal nañu seen jëkkër yi parce que jigéen da ngay muñal sa jëkkër ah waaw madame Meng ñu ngi koy bëggee Céline Céline Binta ñu ngi lay bëggee bu baax a baax vraiment Malou fàttewu ñu la Rokhaya Mbengue fàttewu ñu la vraiment suñu doom jooju ah da Diop fàttewu ñu la ak Asuba vraiment ñu ngi leen di ñaanal une très bonne continuation Odis continuer rek daf ci social waaw yaa ngi ci sport bi yaa ngi ci tool yi yaa ngi ci àll bi vraiment big up à vous la famille gis maa ngi nii moom laay takk merci à vous di ko bëggee bu baax a baax di may tamit suñu jabar jooju nga xam ne mooy Awa Ndiaye bébé Sina Wade ñu ngi koy eh, siini Sini Wade ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di doom ci pap góora Pape Fodé Pape Fodé Wade vraiment di jaaykatu suuf bu mag boobu immobilier bu mag boobu nga xam ni yaru na gëm na waa Wakaam bëgg na jaraaf Youssou Ndoye bëgg na Khadim Cissé bëgg na képp ku bëgg jaraaf Youssou Ndoye ñu koy ñaanal gis nañu lu mu def ci tamxarit bi social bi nag bi yëkk bi nga yóbbu ca euh, penc ma ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax sa devoir la sa sa la alors ñu dem xool euh, troisième morceau bi avant wala di ñëw Mody Ngom Mody Ngom mooy doomu Sénégal boobu nekk Italie di def liggéey bu metti liggéey bu extraordinaire mi ngi paree clip ba mook Momo Momo Dieng bu soobee yàlla di d'ici deux semaines dinañ ko amaat fii ci sama émission parce que man maa koy jëkk am balaa Momo di ko am sax man maa koy jëkk am parce que je travaille avec ñu dem xooli mbooy bi li mu way ci àdduna déglu leen bu baax booy bi ok Gucci vraiment di leen bëggee bu baax a baax mi xale baa ngi noonu xale baa ngi noonu à suivre ci xale boobu nga xam ne vraiment ñi ciy jàpp mooy Paosu ak jawriñu fédération bi nga xam ne mooy nijaayam di ko ñaanal nag ñemb ko nee na ko disque door di nga ko am moo di ngoom vraiment nekk fële ci Italie mën ci bii boor mën ci bële boor mën ci digg bi vraiment di ko bëggee di bëggee monsieur le juge Massaer di ko bëggee juge cinquième cabinet muy def liggéey bu extraordinaire liggéey bu bu am taalibe muy juge bu jub waaw fi mu ne toll ci jamono boo xam ne ñëpp a war a jub juge Massaer merci à vous vraiment jot na ay messages yu bëre gars yi ñu ngi lay remercier di la gërëm ci sa liggéey ak sa ak sa vraiment euh, activité bi nga xamante ni yaa ngi koy yore ak sa disponibilité bravo à toi et une très bonne continuation ren. ñu ngi ci ren dewen yàlla nga dépassé foofu nga nekk di ci nuyu jibaa guccaa ci jantal booy jibaa maa ngi koy bëggee di bëggee tamit sama sëriñ sama xarit xalifa sookoon waaw njaay kunda ñu ngi koy nuyu bu baax a baax e pata waaw nuyul ma cheikh bi bu baax a baax cheikh omar dem ñu ngi lay nuyu moom moom it di ko nuyu di nuyu waa kaolack yëpp ñu mun ziru ñas ñas kumba abdallah m si ñas maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu vraiment omar cheikh omar dem ak famem yëpp ñu ngi leen di nuyu Ah, di nuyu tamit vraiment sama xarit Momar Ngom Momar ngoom ñu gën ko xam ci pata ak état famille eh, eh, ak sa famille yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di nuyu vraiment big up à bu ñu fa jógee dañuy dem xooli Nafisa Nafisa di borom Paris Nafisa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ah, doomu ndeyu Aline Ngom Aline Aline Ndongo allin Ndongo tamit ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee Xalil ñooñu nga xam ni vraiment ñu ngi ñëw ci social bi nga xamante ni mooy jàkk ji ñuy taxawal di ko liggéey te pareeguñu ñu ci dugal seen loxo. Oui, allô, salam alaikum. Aleykum salaam ku càccee. waaye gu càccee. sant yàlla julli cenanti bi. yaa maa ngi ci jàmm bu baax. kooku la waaye mi ngi lay dégg nañ dégg nañ dédicace mais bi moo leerul laali bi. laari non laari bi gën a jàll laari. laali njoon lay si laa. laari si ah, laa fële ca géeje waaye di doomu yoof ah. waaw bokk ci laay Maxtaar laay Alassane Seydina Issa la yow Mamour Mamour mooy sa baay. sa baay sa baay dafa gëm Seydina Issa Laay waaw waaw loolu Maxtaar Laay Alassane muy famille bu baax boo xam ne vraiment Baye ma Baye ma Baye Momar ah Baye Momar ah Baye Mamour Baye Mamour Laay Baye Mamour Silla Laay Silla vraiment yow tamit Lali moom moom moom tuddee soxna ah. ah, bien kon kon kon la Laali Njoon nag suñu doom jooju nu mu def mooy woote nii waaw ne nag dafa ko ko ci kaw. ah très bien nee na kon nee maa koy maye jeex na nañ ma ko bàyyile. bàyyile nañ la ko ba am na am na baay ju am valeur. ju am valeur baayu milliardaire. gu Guccace <laughs> allez au plaisir ñoom Guccace bi mooy feeling bi Guccace bi ñoom dañ koy sentir si seen biir xol Guccace bi dañ koy sentir ci kaw ak ci suuf ak ci digg bi <laughs> très bien euh, Nafisa fële sa France ñu ngi lay nuyu euh, ñoom ñi nga xam ne ci social rek la ñuy dox Aline Ndongo ah Khalil jaañ euh, Diagne Naar Khalil. jantal booy Khalil Diagne ñu ngi lay bëggee bu baax a baax Penda Tuddu ñu ngi lay bëggee tamit ak Fatima Ba vraiment Fatima Ba pour la jëre yow am nga diine am nga xam-xam am nga euh, vraiment yërmande ah di bëggee tamit vraiment chez Fatima Ba boobu mooy chéri Kalidou Diallo Kalidou Diallo nag ba leen ko déggee rek xamee ngeen ko ci social waaw vraiment jabar ji fekk si ko Fatima vraiment ba def lu extraordinaire ci euh, tamxarit bi macha allah ak sa borom kër yàlla na leen yàlla boole yàlla na leen yàlla gën a jàppale vraiment basang sijaada sima loo leen fekk ci néegu yàlla bi ñu koy liggéey te pareeguñ ci rek ngeen dugal ci seen loxo bravo a vous yàlla na seen jaamu yàgg di nuyu Rocky Borboa waaw mi ngi fële ca Genève Rocky moom la ñu booloon ak Bombardier l'homme de Bercy Rocky Borboa gentleman vraiment moom tamit mi ngi champion de la haya moom la la tuddee le champion de la xaya Rocky Balboa ñu ngi koy bëggee bu baax a baax mi ngi ci nuyu jabaram di nuyu famem di bëggee waa Sénégal di ñaanal ci màggalu Touba bi mi ngi ñaanal gars yi vraiment ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm euh, l'homme de Bercy félicitations à toi vraiment gars yi bëgg nañ la Sénégal namm nañ la namm nañu sa prestation namm nañu sa istil namm nañu say euh, fëxër fëxër na nga defoon Bercy l'homme de Bercy na nga defoon Bombardier noonu la ñu bëgg nga ñëwaat Sénégal vraiment soxlawaat nañu revanche bi ak Bombardier mais bu boobaa Sénégal lañ koy tëggee tuddee Rocky Balboa l'homme de Genève moom tamit ku baax la day def ci social moom it vraiment bëgg na yàlla bëgg na yonent bi gëm na boppam bëgg na doomam bëgg na soxnaam ci nekk Ndakaaru Sénégal mu koy ñaanal vraiment nee na moom léegi mu ñëw ku mettul sax dina ñëw ci màggal bi Rocky Balboa ñu ngi lay ñaanal une très bonne continuation vraiment yàlla wéral say cër parce que am nga njëriñ ci société bi bravo a toi sa rafet na bëgg nga Sénégal bàyyi woo Sénégal benn yoon malgré que yaa ngi euh, Genève di liggéey yor say salle de compétition yi internationale di am ay ndam ñu ngi lay tiitaroo di la remercier vraiment Nafisa béggee à vous ñu ngi lay béggee bu baax a baax di nuy group solution tamit fàttewu ñu leen di nuyu le président fédération vraiment euh, euh, Tëngéej Pape Lamine Diop fàttewuñu la jëwrin yow it yaa ngi waajal màggal bi Baye Fall bu mag boobu nga xam ni vraiment ñëpp la teg ci yoon bi Pape Lamine ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay bi di gën a jaale tamit Baye Assane Diop vraiment ñu ngi koy ñaanal Firdawsi mu dem ca àjjana ya maam Cheikh Ramam Fall euh, accueillir ko foofu parce que dina ñu neex trop alors di nuyu Serigne Khadim Fall. borom jaaro yi sëriñ Xaadim Fall ñu ngi lay nuyu di la wax ni vraiment euh, sa xam-xam sell na parce que yow sëriñ Saaliw moo la yar yeru nga réglé nga téye nga sa bopp vraiment sëriñ bi te loo ñaan mu am ñu ngi lay ñaanal yow it gudd fan ak wér gi yaram di ci nuyu tamit sëriñ du Ndiaye di nuyu waa Lubudu di nuyu vraiment Baye Diop borom Paal sëriñ bu mag boobu nga xam ne vraiment moom tamit mooy borom lépp Baye Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di ci nuyu soxlaam di ci nuyu tamit waa dëkk ba di leen wax ni vraiment Baye Diop mi ngi rafetlu vraiment taxawaay bu rafet boobu nga xam ni euh, waa taaliba ñaseen yi ñu ngi koy taxaw ci diine gi waaw ñu ngi koy taxaw ci bi parce que toll nañu période boo xam ne diine rek moo am solo bëgg diine rek moo am solo am diine rek moo am solo di rafetlu tamit maire Sagna woote bu rafet bu yiw boobu mu woote di nuyu doomam yooyu yëpp nga xam ni vraiment bëgguma lim ay doomam parce que kenn du lim njabootu jàmbur yi mais maa ngi bëggee paa bi bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xanaa ma cité ci kenn salama maa ngi koy bëggee bu baax a di ko ñaanal tamit ak monsieur si ak vraiment famille bi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom mère Ndoya fàttewuñu ko borom Sacré Cœur mère Ndoya suñu yaay jooju yàlla na yàlla yàggal ay cëram di nuyu Umu Kalsum Umu Kalsum Umu Kalsum tamit fàttewuñu la vraiment Umu Kalsum ñu ngi lay bëggee bu baax a baax yow euh, yaa Sayda ñu ngi lay ñaanal yow it gudd fan ak wér gi yaram euh, lamp waroon nga woo Umu Kalsum de tey nga waxoon di nga ko woo ce matin xam naa danga nga liggéey moo tax woowuloo ko gisoon naa sa appel Umu Kalsum mais boobu maa ngi ci liggéey bi di ñaanal samay doom di ñaanal samay waa kër vraiment di wax ni Cheikh moo Gueye yàlla na fi yàgg te wér vraiment mi ngi waajal euh, màggal bu rëy boobu nga xam ni ak soxna Ndiémi Thioune ñu ngi koy bëggee Makumba Thioune ñu ngi koy nuyu papay Makumba Thioune pa suñu goro bu baax boobu nga xam ne vraiment nitu yàlla la ci diine rek lay dox ak kinne ak vraiment di kumba eh, cuun tamit ñu ngi koy bëggee bu baax a baax ta faj Diop ta Ndey Diop ah <clears throat> di ñaanal tamit suñu yaay jooju nga xam ne mère ñaaña yaayu mati ak eh, eh, soose yàlla xare ko aljana yi gën a kawee ñu ngi ko doon ñaanal démb yàlla na yàlla nangu ñaan kaamil boobu ñu ko wàccal ibu maa ngi lay nuyu di nuyu Ousmane butiquier xaritu ibu vraiment di nuyu Amadou suma butiquier boobu la famille Sabali monsieur Sabali di nuyu vraiment Ramata madame vraiment di nuyu ko Koura suñu dëkkandoo boobu ale vraiment Pape ale di rakk ci Cheikh sar Zik FM maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee vraiment euh, waa koñ ba yëpp Babacar sama boy boobu nga xam ni Pressing Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu Amadou di nuyu ñëpp di nuyu Khadija. maman Abi ah di nuyu ñëpp ah di nuyu maman Kumba di nuyu ñëpp toute la famille euh, du doon jéego ñu dem xooli Wally Ballago Seck li mu woy ci Serigne Fallou euh, benn auditeur moo ko ñaanoon waa tubaa ñoo ko ñaan Wally maa ngi lay bëggee yow tamit di la ñaanal di ñaanal Soxna dara di nuyu Chérif moom DG Chérif di nuyu tamit Dédé doomu Saint-Louis bu mag boobu Ndiolofène Dédé go caaci doomu ndar-ndar bu mag baa ngi noonu big up à toi Ali sama doom la di nuyu sa jabar soxna si di nuyu sa papa Mourid ndooy di nuyu Ablaye Gueye suma jantal booy Anta Diagne di nuyu Mariama Ndoy di nuyu waa Mérinerie 1 ba 6 maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax di nuyu Ngoné Ndoy ma sœur chérie adorée Ngoné maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak une très Ndoye di nuyu tamit euh, vraiment Iba Ndiaye Iba Iba Iba Iba Ndiaye Guèye maa ngi lay nuyu Iba Ndiaye Sall maa ngi lay nuyu vraiment di nuyu Awa Sembène ma sœur chérie di nuyu tamit maire bi Daouda ñaa di la ñaanal tamit une très bonne continuation gudd fan ak wér-gu-yaram ñu dem xooli Wally ko Seck après nag ma def dernière salutation après tëj jox leen rendez-vous di prochain bu soobee yàlla di ñaanal tout personnel u stv yëpp yàlla suturaal leen sagal leen yërëm leen te jéggal leen Dakar waaw ndeysaan foofu lañ koy bloqué parce que ñaari guddi Dakar yooyu Serigne Touba dundu Ndakaaru vraiment duñ ko yegali dañ ko fay dagg bloqué ko fa di ko may waa Touba ñoom ñu woote woon ñaan ko di ko may mbay si mbay si si Malick Aminata mi ngi pare gàmmu gu mag googu nga xam ne mbay si kay de pêche bu yof borom jën yu mag yi borom jën yu baax yi borom jën yooyu nga xam ne même bu ko congelé woon une semaine boo ñëwee day mel ni jën bu bees bees bees la tellement que entretien bi mu am ci jën yi ak ni mu fonkee jën yi jën yi sax la gën a fonk ko xar yi muy yar këram laa dum yooyu muy yar parce que moom day jënd jën ba pare ah di ko di di di di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko yaraat waaw moom day jàpp jën ci géej gi ba pare jënd ko ci mareyeur yu mag yi moom mareyeur bu mag a mag a mag la moom léeg-léeg bu demul géej day jàpp jën yi di ko yaraat kookoy mbay si vraiment fonk jën xam valeuru jën mën a joxe jën nag mën a joxe jën loolu tamit dañ koy wax vraiment di def ci social di def ci social bu extraordinaire mbay si doomu yof boobu nga xam ne moo nekk ca quai de pêche bu yof ba ñu lay nuyu di la ñaanal di ñaanal ku la jege di nuyu tamit ku la jege ak sa équipe boobu di euh, di di di foofu ca tefes ga ñu ngi leen di bëgg ak àlla amanaam Sarr ñu ngi lay bëggee mi ñuy suivre fële sa Richard Toll ak Bob Sarr frère de Sana Bob Sarr sama séeréer boobu añaaja doomu day président jenn Marcel Diagne Sana maa ngi nuyu président Diène Marcel Diagne du nuyu Jo Family Jo Family ñoom tamit ñu mbuur ñu ngi may bëggee bu baax a di mu suivre du nuyu Marcel Diagne du nuyu Mota Mota tamit ñu ngi koy bëggee di nuyu bëggee du di bëggee di bëggee Tafa Diop dëpp di bëggee vraiment kilifa diine yi nga xam ni ñoom it ñu ngi ñuy ñaanal ñu ñoom ñoom tamit ñoo ngi leen di ñaanal di leen wax ni tamit vraiment Jaynaa bu Momo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax encore ak kan parce que dédicace mi ngi nii waaw Idrissa Idrissa ñu ngi koy bëggee ah Idrissa c'est Idrissa waaw Idrissa ñu ngi lay bëggee bu baax a baax sëtu sëtu lëg dawur ah sama sëriñ baa goog Idrissa wallahi maa la bëgg sama waa waajaa ngi noonu lëg dawur borom borom Ndakaaru waaw mais alors après ma woola ah, <laughs> moom daf may jël trois heures du matin yóbbu ma ca ca penc ma sanga ma ba ma set après yóbbu ma xuuru baay soogi fala ca kaw falaay sangoo dafa samay saraxu soow parce que man maam ku ma lambaay ndoy mooy suma maam billaay walaay talaay ku ma laal jommi ku ma laal jëfur ku ma laal daanu duudu ndoy doomu ndey mag baayam surtout maamam doomu tëngeej bu mag boobu sama baay alaaji Lamin Ndoy jëkk nekk commissaire bu ñuul tëngeej jëkk jiite tubaab yi nekk le président de la collectivité lébu lébu yëpp tëngeej ma bàyyee seen baay man maay seen baay waaw <laughs> du Ndoy Ndoy la bu Maali Maram Ndoy di bëgg sama yaay Adja Abikan yàlla xare ko àjjana yu gën a kawe tamit ba bokk ci famille bu rëy jarul ma koy lim parce que lu tëgg tas mère baa nga àjjana paa baa nga àjjana mais man maa ngi ñëw ni dagaj àjjana incha allah parce que am nañu diine xiir nañ suñu bopp ci diine di bëggee tamit vraiment euh, suñu juge boobu ma Massaer saar di ko ñaanal vraiment mi ngi cour d'appel léegi kon la ma doon ñaan yàlla nangu na ko léegi léegi la ko président rek affecté ko. waaw parce que moom liggéeyam sell na liggéeyam ci yoon rek la koy teg du ger du ger du ger du def nii du def nii te mi ngi dimbali ñi nga xamante ni seen dossier yaa ngi ci àll bi te amuñu moyen yuñ ko yu ñu fayee avocat mu leen di dimbali merci del def lu baax rek juge sar Sarr yàlla dina la wan lu baax parce que yàlla lu baax la santane Nafi Sarr Sara ñu leen di bëggee di bëggee umu kalsum Ah, ah vraiment Umu Kalsum tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Idrissa Ndiaye lëg da jar ah, di sët ci lëg Daawur Ndiaye Idrissa ñu ngi lay ñaanal tamit sa liggéey sàll na sa liggéey ñeme ngoon li ngay def lépp loo wax dëgg la waaw moom it ñaanalal gouvernement bi ñaanal ñaanalal président Macky Sall parce que ministre des sports xam na la bu baax ñaanalal Marème Faye Sall tamit xam nañ la bu baax ñaanal leen famille boobu nga xam ni vraiment président de la République ñaanal yàlla dimbali may la gudd fan ak ak vraiment une très continuation di ñaanal état bi di ñaanal Aly Ngouille Ndiaye félicitations doomu nday Diène Marcel Diagne président Aly Ngouille sa liggéey rafet na continuer rek jàpp taw a bàyyi voilà bu ñu jógee foofu ma tàggu leen ma tàggu leen titi waay titi bi mu woy sëñ Abdou Karim Mbacké Ousmane tëjeel titi gars yi ma leen di jox rendez-vous vraiment semaine prochaine euh, di ñaanal gars yëpp di wax ni inna allaha la yanzuru ila suwarikum wax waaleykum bismillahi rahmani rahim suukitan makitan sakitan lakin tub yàlla na yàlla def jàmm gonna lie.